ànd bi ngeen di ànd ak ñun di wéy ci programme bu rajo xasida online Touba monde bi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

للمسلمين عبدا ورحمة وجعلهم بنا هدى وخيرا وكفهم منا أذى وليلا radio xasida online touba monde bi bismillah bismillah inna wallahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit mbok talibi talibé ñi ni deglu ci touba monde bi ci sen radio online touba monde bi nek fi ci touba itali kaddu gi di bayiko fi ci touba milano ci studio serigne mohammed muntaha mbake mom cheikh mohammed basir ñu leen di nuyu di leen siyaare ci seen émission bi ñu tudde al axlaq di waxtaan woo xam ne dañ leen koy defal bis bu ne li tàmbalee altane ba ajjuma ki leen koy defal di seen mbokkam taalibe ibrahima xalil di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi seen ci di mbàkke di ñaan sun borom yàggal ko fi te wéral ko di beral cant ak ngërëm ki nekk ci wàllu xarala gi sëriñ mudu mbay càmm bay faal seq ko ak natt ngoom sëriñ bu jës bu nekk ca taskaanu sunu waxtaanu tey ñu bëgg ko seq ak sunu jëwriñ du sunu kilifa di sëriñ Mbàkke Abdourahman kenn ku ne miin ko ci jataay bi kenn ku ne itam miin ko ci itteem ak pëstéefam ak itam leeral mi am solo yi nga xam ne waxtu ne mi ngi koy def ngir bañ a guddal diñuy jox sëriñ Mbàkke Abdourahman mu nuyoo bu nuyoo ba noppi nag incha allah ñu door a dugg ci li nga xam ne mooy waxtaan wi ak thème bi itam fi mu jëm lépp incha allah ñu mën koo leeral kon sëriñ Mbàkke bisimilah. aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala Ibrahima aleykum salaam wa taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di jaar sama nuyoo ci yéen di ko jot li mbokk yi nga xam ne yëpp yéen a bokk nekk ci foofu nekk bitim réew di yëngu ci yoon bi di yëngu ci diine ji ci rajo bi nga xam ne yéen koy saytu muy lu am solo di nuyu mbokk yëpp di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm àddina ak alaaxira jërëjëf sëriñ Mbacke Abdou Rahman ginnaaw bi sëriñ bi nuyoo ba noppi mu jébbal kàddu sëriñ Xaadi Jaxate ngir mu leeral nu tem bin tànn tey ngir waxtaan ko ci makaarimal axlaax asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen baluwaq di leen balaq di ñaan suñu borom mu boole ñu baal tey jii tànnaat nañu mawdoox boo xam ne eh, solom bu ñu ko déggee kenn du ko nattable ndax daanaka jullit bu ak Euh, ñaanam nangu dana ci àgg euh, muy lu aju ci sëy di benn tomb ci biir sëy tey ñuy waxtaane ak talaq wal idda muy jëmmi fase ci boppam ak idda loolu am ay sew-sew yu baree bari yu ci nekk ñaare it waxtoo mi gaar jullit bi du doon mukk ci jamonoy mbégte ba tax ay defiinam xaw a sew waaye sariya nag bàyyiwul dara nit mu di ca jëfandiku ci coobareem leen lu nekk am na lu mu ko rëddale ba tax ci fase moomu ñuy wax fasem sunna fasem moo xam ne raj yi ak fase moo xam ne mu dog la ak ay xeeti fase yu baree baree bari te lu bari ci nit ñi mën nañ koo bañ a xàmmee rawatina la nga xam ne mooy leen di gaar ba tax ñu di ko def ñaare luy tàngal ab xol lay doon di fatt am xel te su boobaa du tax mu sañ koo defee ni mu waree moo tax kon lu laaj xam la waaye lu laaj it ak teey la lu laaj ak dal la mu bari it ay defin te wuute te lu mu ci doon nit ci war cee dëppoo ak sunna muy ci jëmmi fase ci boppam yonent bi sallallahu alayhi ni muy waxe ne mbooleem yi dagan fase la ci suñu borom gën a bañ nga xam ne kon dagan na ndax eh, ab diggante su demee ba yàqu nar caa am xam ngeen ne alquran dafa wax ne nit ñi nañu ànd ci rafetal suñ demee ba loola mën am bu ñu tàggoo ñu tàggoo ci njekk waaye bu ñu ànd ci ak ñaawoo ñaare lu baree bari loolu dégg ko dana jafe ñu bari ñoom xam nañu ànd ci rafet waaye tàggoo ci njekk moom eh, ñu bari dégguñu ko te sañee suta ànd ci ñaawoo kon tàggoo ci njëkk moo war a am kon nit ñi su leen yàlla boolee ñiy ànd suñ borom mi dogal ànd moo dogal mooy dogal taqalikoo buñ demee ba taqalikoo war a amit war nañoo rafetal taqalikoo ba na muy mën a rafete nag mooy mu tegu rek ci ni ko sunna bëggee jërëjëf sëriñ Xaadi Jaxate kon ñiy déglu émission bi mu di makaarimul axlaax gannaaw jikko yu rafet lan wax te ni ko sëriñ xaali leerale ci biir wax ne fase ak li ci aju da ñaari nit ki bu koy def doo koy def ci ak xol bu tàng te du ko defee sago te lim wax ci jeexantal bi wax ne ab jullit lépp lu muy def doo ko war a def mu dëppook sunna kon képp ko xam ne yaa ngi jàngale makaarimal axlaax ragal naa ne makaarimal axlaax dafa war a mattale ci boo amee mbégte boo amee safaan ba lépp luy dugg ngay fexe mu dëppook sunna loolu moo tax ñu tànn tem bi dugal ko ci biir makaarimul axlaaq xam ne islaam moom bàyyiwut dara te lépp lu ne waajal na ko kon lépp loo xam ne itam jullit bi mu ngi koy def war na koo teg ci sunna moo tax ñu tànn tem bi kon sëriñ Mbàkke ñu ko sëñ xaali leeral rek sunu waxtaan tey lin tànn ci yow wala lin sàkkoon ci yow nga waxtaananu ci mooy lu jëm ci at talaax wala idda mu di ak idda kon serigne mbacke bismillah jërëjëf eh, serigne ibrahima ñu sakkoon ñu waxtaan ci moy lu jëm ci fase ak ya top té aidda lenn la ci yoyu ñu nar ci nafar ngir lenn te ci ak mbokk yi nga xamné xeyna xëy na jamono ak xat-xatam dana di tax leg leg yenn masala yi di jaxaso waaye it laa biire ci ñi nga xam ne xëy na àggaguñ ci woon bunt la bu am solo ndax ku sa ñaan nangu incha allah da nga ci loo xam ne mën na koo jur ndax danga nga samp kër te bu samp kër amee nag lii ñuy bëgg a waxtaane mën naa am jërëjëf sëriñ Mbàkke Abdu Rahmaan mu mel ni temu tey bi xëy na fi jëm ku miinut waxtaan yu mel nii mën na la jaaxal mu di li jëm ci passé ak idda sëriñ Mbàkke ndax thème bu mel nii jar naa waxtaane jar naa waxtaane ndax lislaam andiwu ko fi waaye da ko defar da ko jubbanti ci xeet yi jiitu woon lislaam daan nañ ko def waaye diggante ku ëppal ak ku yées am na ñoo xam ne dañoo ëppaloon ba fase amuluñ ko fu mu yem saa yu la neexee fase noo la neex fase moo xam am na sabab su wér moo xam amu ko wax dañuy wax sax ne jigéen bu ñëwee ci kër am ci ay at te amul doom sax dañ ko war a fase saa boo gisee ci moom loolu neexut ci jikko wala ci bind ba su la neexee fase ñooñu dañoo ëpp waaye ca nasaraan yi am na ci ñoom ñoo xam ne dañoo wax ne fase dafa xaraam lépp sëy buñ xas fas kenn sañatu ko fecc ak nu zuruuf yi mën a demee ñooñu it ëpp nañ ci wet ndax léeg lekk mu naqari moo tax nga gis ci seen biir kër yi ñoom ñu dem bañ wax ne dañ leen a tàggale waaye kenn du dindi sëy te buñ leen tàggalee nag kenn ku ne ci ñoom sañ ngaa dem ak sa bopp fu la neex dem lu neex dem waaye buumuk sëyit moom duñ ko dindi loolu it ku ne xam na ne duubi dugg lislaam nag ñëw ni ko baaxoo nekk diine digg nekk ci digg bi wasatiyee gi ko ñëpp ko xamee du ëpp du yéen waneeti na ci bunt bi ñu bëgg a waxtaane ne mooy diine suñu borom gi mu gërëm nangu fafe ci bu ko jamono bi waaye nag di ko moytulu ndax gënul waaye léeg-léeg nag nit dem ba ñu xam ne fii bu passé amul la fay am moo yées passé foofu mel noonu la lislaam di santaane passé kon jar naa xam ne lislaam lim ci indi ci xeet yi ko jiitu woon masi su ko indi tënk ko it ba nga xam ne du kum neex rek nga jël ko def ko ngànnaay loo xam ne saa yoo meree soxna si rek bu la neexee daal ko koy doon ñu mu amee woon ci xeet yi jiitoon bokk na ci araab yi njëkk lislaam bi ñëw ci ñoom amul lu ñu woon fase am daan nañ yor jigéen nangami at duñ ko fase duñ ko wacc suñ ko fase ba iddaam di waaj jeex ñu fayle ko mu dellusiwaat ñu fase nga xam ne day doon jigéen joo xam ne duñ ko jàppe ku am borom kër duñ ko jàppee ku amul borom kër mën naa dund ci loolu li des ci dundam loolu lépp bi lislaam ñëwee da ko sàkk li ca dégg tooñ lépp mu dindi ko sànni kon bunt bu am solo la bu mat a waxtaane boo xam ne it duñ wax ne léppam léeg lekk jamono andi ko ay nit di ànd di dund ci loo xam ne dañuy dem ba yëg ne tàggoo moo gën gaa ñu baax ni jaar na nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bàyyi na soxna ak saxaaba yi ñu bari ak ñeneen kon ñu xam ne lu mën a nekk lu mat a waxtaane la fase nag xam nañ ne ci wolof li muy tekki rek ci fas la jóge lu ñu fasoon ñu fecci ko ab sëy buum gu ñuy fas la diggante ñaari way dencante ngir ñu mën a ànd di dund mën a jariñoonte mën a jariñante fecc buum googu nag ba lañ sañoon seen diggante dootuñ ko sañ loolu moo tudd fase ak buum guñ façon di ko fecc la ci góor gi lay bàyyi ko wala ku ko wuutu ci góor gi lay bàyyi ko wala ku ko wuutu loolu it dana leer ci biir insha allah lu tax suñu borom ci lislaam ñu wax ne fase ci loxob góor la nekk du ak tooñ jigéen waaye ak maandu la bu ko defee fase moom nag am na ay acte ci lislaam danañ ci wax man nañu wax ni dagan bu ay sababam dajé dagan na nit faté soxna ndax alquran wax na ci lu koy at talaq marratan fa imsaakum bi maarufin aw tasrixum bi ihsan ixsaan والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ويبقى آيات ak yeneen yu wane ne yoonal nañu fase waaye nag sunu boroom day taamuwu ko maanaa kenn waru koo def rekk ci lu dul sabab su dëgër soo xam ne koo ko wax ne ko nan nga ma tax ma tàggoog soxna si dana xam ne loo jàll moo tax yonent bi alei salaam waxoon ne abgadul xalaali inda allahi at talaaq yu dagan yi yàlla fase la ci gën a ndax ñu ànd bu yàgg ñu tàggoo neexut suñu borom daa bëgg nit ñi ànd bi jariñante ci jaxso kon bépp tàggoo buy ñëw ginnaaw ànd rek gënu léeg-léeg nag day tane day tane wéy ci ànd boo xam ne jariñante ak jariñoonte moo taxoon te mënut ne kon dafa dagan waaye léeg-léeg nag mu nekk waajib léeg-léeg fase nekk farata nga xam ne dañuy ganit ki ci ne ko faseel saa boo xamee ni ànd ak soxna si dana dem ba jural nit ki lu xarab mu leer ko ne su wéyee ci ànd ak moom dana lekk lu xaraam wala dana fagg lu xaraam wala dana togg lu xaraam tàggoog soxna suy waral loolu day nekk waajib saa bu ab say fasoo te teguwul ci yoon tas ko day nekk waajib kenn du wax ne sëy bi baaxut waaye ginnaaw fas nañ ko rek nañ bàyyi noonu déedéet am na ci yenn yàqu yoo xam ne bu fekkee noonu la saa buñ ko yëgee lu mu yàgg-yàgg donte am nañ ay doomi dañuy tas sëy tas googu day nekk waajib kon fase sëy nekk farata léeg-léeg ci nit ñu ne ko yow mii soxna sii nga àndal ci lu xaram képp la lay dugal kon tàggoo ak moom waajib la ci yow boobu tàggoowut ak moom wéy di dund bi moom ba àgg ci lu xaraam loolu bàkkaar bu rëy ngay am waaye dana nekk it lu ñu sit nga xam ne tere nañ ko waaye àggut ci xaraam bu fekkee ne amut sabab su wér amut sabab su nga xam ne bu la laajoon yow lu tax nga tàggoog soxna si la ngay wax ma boo nappee ñu ne la loolu jërul fas soxna bu dee fase mel noonu sib nañ ko boo fasee su soxna lu ëpp benn yoon it sib nañ dana yem dana nekk lu dagan nga xam ne daf gi bàkkaar nekku ci ñàkk koo dafit tiyaaba néew ñoo yem daal nit koo xam ne dafa yëg ci soxnaam ni daal jikkoom rafetul jikko ju tamit fas yéene ànd ak moom te nga xam ne mënoo koo soppi mënoo soppi jikko jooju kooka tàggoo moom dagan dana nekk nag luñ sopp bu fekkee ne jigéen ji ñuy fase dafa tënkuwul ci ndigal yàlla yi nga jéem jéem nanguwut te mënuloo ko ci dara borom xam dañuy wax ne jigéen ji mel noonu sopp nañ fase ko ndax tàggoo moom moo gën ànd ak moom ginnaaw nanguwut a tënku ci ndigal yi te jéem nga ba sonn te mënuloo ko dara dana nekk lu xaraam fase léeg-léeg lu xaraam fasé dana nek wajib, fasé dana nek luñ sip dana nek luñ sop dana nek lu dagan waye tam léeg-léeg mu nek lu haram fan lay nekke lu haram fekkee ne jigéen ñi dafa tollu ci waxtu wo xamni julli du julli ci xala bu mel nonu ci yenn anam yi dëgganut fasé jigéen ku ko def dafa lu haram xaraam atté yoyu ku ne war na ko xam rawatina buuj boobu li ëpp ci buntu bi fase ñaare buy am ci mer lay am ñu néew ci nit ñi ñooy tàggook seen na ci ak dal waaye xuloo wax di jëm ko ba nit wax léeg lay sax jumluwu ko woon waaye mujj wax bu baax nag ñaare ñi def loolu du ñu seet ba xam fi mu toll ndax kañis na ko fase wala def te dëgënut ci lislaam nag jigéen toll koo xam ne du julli du woor ba noppi ngi fase ku ko def rek def na lu xaraam am na bakkaar jëfee te it am na leneen lu ci tege dañ ko wax kon juróomi at yi am ci lislaam mën nañu wax ne dina gaar sate waaye ci cosaan daal mooy lu dagan léeg-léeg mu weesu dagan dem ba ci waajib léeg-léeg mu wàcc doon lu ñu sib bàgg ci xaraam léeg-léeg mu yem ci li mu doonoon rek wala ñu sopp ko borom xam-xam ne dañuy wax ne ñetti xeeti fase ñoo am ñetti xeeti fase ñoo am am na fase moo xam ne nangu na delloo si moom la ñuy tuddee fasem tayli fase soxnaam tàggoo na soxnaam waaye bu ko neexee mu jëlaat jëlaat doo xam ne du tàggoon du tàggu ndaw si du tàggu ay bokkam du joxe kenn deesut fasax loolu mooy fayli nit ki su tàggoog soxnaam ci fase moomu fii yëpp idda ji jeexut saa yu ko neexee rek ne ko la ma waxoon jëm na deesu laaj jigéen ji ndax ànd na ci wala àndul lu ñu laaj bàyyam lu ñu laaj kenn ndax ba tey ab teb soxna la na ci moom yu ko neexee mu ne maa waxoon ne fase naa ko bàyyi naa génn naa am na neneen fase mu tudd ba in mooy xam ne soo sukku nit fase soxnaam tàggoo nañu tàggoo goo xam ne bala koo bu ko bëggaatoon day delloo ca bàyyam wala waliyu kilifaam ñaan ko joxewaat kenn ñu laaj jigéen ji ba xam nangu na wala déet faw ñett yu amaat ñu doon ko xas waaye su ñett yu amee rek mën nañ ko xasal ñetteelu fase ni mooy ni ñuy tudde fase bu dog su ko nit xasee fase soxnaam fii ak soxna si demut feneen ba yàlla dogal mu tàggoog kooka doodoo ko sañuy jël moom la ñuy tudde ba'da zawj faw mu amaat borom kër ba tàggoog moom mooy ku fase soxnaam lu man ñetti yoon képp ku fase soxnaam lu man ñetti yoon dootu ko sañ a deñ fii ak soxna sa jaarul feneen mu amaat beneen borom kër ñu ànd ba borom kër ba faatu wala yàlla dogal ñu tàggoo tàggoo goo xam borom kër bu njëkk bi doonu ci dara su boobaa nag bu iddaam jeexee borom këram bu njëkk bi sañ na ko jëlaat ci kaw ñu laajaat jigéen ji mu joxe cen ay kilifa may ko ñetti xeeti façon yooyu ñoo am am na moo xam ne moom saa yu la neexee jëlaat am moo xam ne nag dog na sañ nga koo jëlaat waaye nag dangay ngay defaat lépp ak moo xam ne nag faw nga ne baax de sëw bi soo négut baax de sëw bi xanaa dem dëgër ba fas ko boo ko fasee fasuwul loolu mooy ñett yi am bu ko defee parce que ñu wax fay fase la moo xam ne mooy fase soxna benn yoon fase ko benn yoon muy iddawu te idda ji jeexagul te fase mi àndut ak alal du jigéen ji moo la jox alal ngir nga bàyyi fase mu mel na moom la ñuy tuddee fase mu tayle waaye ku fase soxnaam ñetti yoon nekkatu ko bu fekkee jigéen ñi daa fay alal nekkatu ko bu dee fase moo xam ne yoon a ko tas da ngeen dem ba dem ci yoon yoon ne tas naa sëy bi fase moomu it nekkatu wàcc kenn du ko fay day nekk ñaareelu fase bi ñuy wax fase mu facc muy bàyyi mooy mu yoon tas walla jigéen ji fay alal walla fasem fay la bu ëdda ji jeex fasem batt nag mooy mi nga xam ne góor gi daa fase soxnaam ñetti yoon moo xam da koo takk fase ko ñu dem ba mu yàgg mu takkaat ko fasewaat ko dem ba mu yàgg mu takkaat ko fase loolu mooy cosaan bi ñetti fase waaye képp ku wax ne fase na soxnaam ñetti yoon it waxandoo ko benn yoon ñett yépp koy war loolu mooy mazhabu Imaam Maalik suñu boroom daa yaataloon nit ñi nit ñi xatalal seen bopp moo di ne liñ jubluwoon ci ñetti fase mooy nit ki mën naa tàggoom nit dem ba mu yàgg xelam na ci ñu waxtaan juboo ñu mayaat ko seen diggante naqareeti mu fase ba mu mat ñetti yoon boobaa la ñu wax ne suñu ko takkati lu dul baax de waaye nag ku ñëw wax baat bi ñetti yoon nar rek ne ko fase naa la ñetti yoon it fase mu dog lay tudd jigéen jooju dootoo ko sañ jox féeg amul beneen borom ci ay sart yu leer yàlla dogal ko mu tàggawaatu kooku fase yooyu yëpp nag dana nekk fasem sunna dana nekk fasem biddaa fasem na mooy fase moo xam ne jaar nañ ko ci sunna jaarlu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaarlu fase te mooy bu mu fase jigéen bi ci fekk setut ku ko def fase bi daala te def na lu bi na ko fase ci laab waaye laab googa it jotewu ci ak moom maanaam nit du ànd ak soxnaam ba noppi xëy na ko fase naa ku ko def fase bi daa nga def def nga lu ñu si naka noonu men benn yoon fase ne ko fase naa la wax ko benn yoon boo ne ko fase naa la ñaar yoon wala ñett yoon wala wax lu ëpp loola def nga lu ñu foofu it bokk na ci liñ fi seetlu lislaam ci bañ gim bañ fase moo tax tëralal na ko yoon yoo xam ne ku ànd ak sago ñaare boo ko defee rek kenn du la ndax dana fekk ñu xam ne sa sin ginnaaw loo mer mer dañ lay wax ne bu ko fase te fekk setu set googu it bu ko ci jotee bu ci jotee ak moom bul jotee ak moom ba noppi xëy fase yooyu ku koy bàyyi xel da tey ba sooy fase da nga yëg ne kii daal dëgg dëgg yaayoon nañu fase waaye mer dong dong boobaa du la tax a fase kon fase ci biir ñàkk a laab fasem bi daal fase ci laab goo xam ne boroom kër bi daa jotee ak soxnaam ba noppi dool koo fase fasem bi daa la ku fase soxnaam lu ëpp benn yoon fasem bi daa su ko defee ñett fase yu ñuy waxit nag danañ ci leeral ne ku fase woon soxnaam benn yoon yàlla dogal mu dem sëyi feneen tàggoog kooku nga dil siwaat sa fase mu njëkk ma day kon am nga mel na fase boo ko fasewaatee muy ñaar du ñu wax ne jaar na feneen kon buum nga jeex fii matagul ñetti fase saa yoo fase dañ koy lim moo xam jigéen bi jaar na fenn door a dellu si ceew moo xam jaarul fenn loolu it mat na di bàyyi xel ci mel ni sëriñ Mbàkke ponki pase ñaata la ponki pase moom dañuy wax ne ñeent la yi nga xam ne fase mooy am bu njëkk mooy ki koy def fase boroom kër moo koy def wala ku ko wuutu kii wuutu borom kër nag mën naa doon ndaw lum yónni mën naa doon buur yoon mën naa doon soxna si ci boppam nit mën na ne soxnaam jox naa la sa mbir bu la neexee fas sa bopp mën naa yebal nit ne ko fasal ma sama soxna mën naa bind lettre jox ko nit mbir mën nañu dem ba ci yoon yoon gëstu ba xam ne sëy bii dañ ko war a tas mu ne waa ji fase ko fasal naa la ko kon borom kër a koy def wala ku ko wóotu مقام حاكم la wala zawja la wala wakil la waaye jàmbur du fase soxna doonte bàyyi la mënta fase soxna jàmbur yow mi am doom ju jigéen maye ko mënoo mere borom këram ba fase ko fase mu wéy saa yoo jàppee ne seenu ànd jaadootu li nga man mooy waxtaan ak borom këram wala yóbbu ko ci yoon bu yoon l'islam gisee ne ñii dañu war a dañ leen war a tàggale mu tàggale la waaye kenn amut sañ-sañu nag mere nit rek ne ko sama doom nangu naa boo ko indee sa kër ko fi soxna jàmbur la boo ko mayee keneen boo ko mën a may boo ko fasee fasiwul ndax ab sëy bu tegu ci kaw sëy jamono yonent bi benn waay boo xam dañ koy yilif ab sangam da ko may ab laram ak jibéeram mere ko ne ko wacc ko waa ji am fulla dem ci yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko kii sama sanga de moo ma mayit jibéer bii so ab ab ab ab ab léegi nag daa bëgg ma wacc ko te man bëgg ko wacc te la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jóg ab xutba bokk na ca wax ne yéen nit ñi yéen nit ñi lan moo tax kenn ci yéen may ab laram soxna bam neex ko mu bëgg tagal ak mom na ngeen xamni mbir ñëwut fofu innamat talaqu liman akhadha bi saaq ci la ko waxo borom kër mo saña fa ci soxna donte ab jambu jilif la mom alalam lepp bu xasse am soxna ab sang mënu ko mere ba ne ko faseel soxna bu ne ko fase na koy durab mom rek mo mën a soxna loolu jar na ñu xam léeg-léeg da ngay dégg nit koo xam ne da lay wax ne la moom daal ay goroom ñoo ko mere nangu seen sox nangu soxnaam yóbbu bu yàgg ñu dégg ñu ne may nañ ko keneen dañu xam ne ku def loolu yoon moo mën a tasub sëy xeeti boobaa it da ciy wax ak borom kër bu dul loolu nag buñ ko fasee fas buñ ko tasee tasu keneen kuñ ko may soxna jàmbur lañ ko may ndax innama li man axada bisaaq kon loolu mën na bàyyi xel borom kër moo koy def kon wala kooku ñu wax kooku it ab jullit lay doon fase ci lislaam la kon ab yéefar bu fase woon wéyu ci misaal ñaari nit ñoo xam ne bu ñuy jullit bu jigéen ja tuuboon góor ga lànk bañ a tuub dañuy tas sëy ba su fekkoon ne da koo fase ñetti fase fase yooyu kontu su góor gi dañuy tas ba digal jigéen ji mu iddaw ci biir idda ji bu fi góor gi nangoo tuub dañ koy delloo soxna duñ xool ne fase woon na ko ñetti fase ndax ñetti fase yooyu kontul faseen yéefar la ci lislaam faseen yéefar ci dox kon aji fase ji na doon ab julit na doon ko amul xel koo xam ne dafa yor wéradi xel bu ne soxnaam fase na koy fase mu yëg ñooñu seeni wàllu seen kilifa ñoo taxaw seen taxawaay ak kuñ forcé ko xamni dañ ko forcé nako ko soxna mbaa ñu def la nangam mo xam tejj la mo xam ray la mo xam duma la mo xam jël alalam la su boba fase momu buñ ko waxé mu daf ko it bu loola jallé sañ na jël soxna fasé mo yit ndax illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ci gëm yalla sax kuñ wax la won weddil yalla ndax nar ko ray war nar ko duma bam wax baat bi waye aggu ci xolam deesu koo jàpp kon ku fas kuñ kuñ forcé ne ko faseel mbaa ñu def la nangam ba tax mu fase soxnaam parce moo ma wéy bu ko defee fase it day am ab baat bu koy tegtale faw wax lay doon wala jëf ju koy tegtale nit ki bu ne fase na soxnaam fase la bu liyaaree wala mu bind fase la kon ab kàddu lay doon wala lépp lu taxaw taxawaayu kàddu waaye nag yéene kese wala li ngay wax ci sam xel moom li ko jàkk fase nit ki mën nay wax ci xelam soxna si fase naa ko waaye làmmiñam tudd ko fii jiwitu làmmiñ rek duñ ko jàppe ne fase na waaye nag bépp kàddu bu wax te yéene ca fase fase la gépp kàddu bu mu génn ci làmmiñam rek te jublu ci fase la fase la bu ne ko fase naa la moom la bu ne ko yewwi naa la moom la bu ne ko may naa la sa bopp moom la bu ne ko mën ngaa dellu seen kër moomu dañuy wax sax ne bu ne ko woon indil ma ndox ma naan te yéene ci fase ko fase leen kon yéene ji moo ji mu am solo foofu saa bu waxee kaddu wala mu jëf-jëf te yéene ca fase fase la kii liyaar donte mën naa wax waaye bu liyaaree loo xam ne fase lañ cay dégg fase lañ koy jàpp ndax fase mënees na ko kafe fase moom amul kaf kaf jëmu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ñett kaf jëmu ci fasuf sëy kaf jëmu ci fase soxna kaf jëmu ci fayle kaf jëmu ci maanaam jidduhu jidd wa hasluhu jidd la waxoon nit ñëw ne la sa doom ñu tamit la ko may mu ne ah boo bëggee de ci ay kaf nga ne ko may naa la ko mu ne jël naa nangu naa sëy ba fasu donte da ngeen doon kaf waaye soxna am na soxna moom fase nit noonu boo ma fase ma dem mu ne ko fase naa la jublu ci kaf bu xasee tudd baat bi fase duñ nangooti doon kaf naka noonu ko fase woon soxnaam ba di ko fay la yit bu ne woon damay kaf it la kon ñett yooyu dañuy wax ne kaf jëmu waaye fase it dañ koy jublu moom maanaam li nga wax na fekk nga jublu koo wax nit ku déggut arab ñu ne ko neel zawjati taaliq mu wax ko du tax ñu ne soxnam tas ndax koku limi wax jubluwu ko ci taggo ak sagom di wax wax jooju dañuy jàpp ne jubluwu ko moo tax parce faw waji ji jublu ko na doon ko xamne biñ koy wax mo jubloo wax ban su ba lañ koy japp ne fa fase waye fiig wax la jo xam da ko recc aw lam ñu recc wax ko wala dañ ko ko sakki la ko deggu déggut su boobaa duñ ko tudde fa fa it day am barab mooy soxna la ñuy fase soxna la fase soxna si nag mën naa doon su fi nekk ni nii mën naa doon suy ñëw ëllëg ku am soxna ne ko fase na ko fase mu dog na ku nit jigéen bis bu ma la takkee fase naa la lu mu yàgg-yàgg bis ñu ko ko mayee keroog ba sëy ba taxawee ba sëy ba tax kàddu boobu dañ ko koy jàppal dañ kon yooyu mat naa xam pafe bu amee dafa bari ñu cee topp yoo xam ne yu mat a xam bokk na ca xëccoo ñaare pafe bu amee xëccoo danaaw bagage yi maa moom lii moomoo lislaam noppiwu ci dara saa bu tàggoo amee bagage yi dañuy xool lépp lu ci am seere borom seere saa ko moom ku mën a indi seere lii maa ko moom moom lañ ko jox mu jeex bu dee bagage yi nag seere amul dañuy xool bagage bi ku ko baaxoo moom am na bagage yoo xam ne li ñu xam mooy góor a am na bagage yoo xam ne li ñu xam mooy góor jigéen ko baaxoo moom am yoo xam ne ku ne mën na ko moom yi jigéen baaxoo moom dañuy wax ne nañ ko giñloo su giñee ne maa ko moom ñu jox ko yi góor baaxoo moom dañ koy giñloo su giñee ne maa ko moom ñu jox ko yiñ bokk góor lañ koy féetale sunu bopp bi waaye loolu nag li ëpp solo mooy ku am soxna na leeral lim moom bari nañu tàggoo ñuy coow ci ab lalak ab armoire ak yu demee noonu naan bagage yi du dem te fekk wax ji daal leerutu bu leeree ne soxna si nga ko may buy dem da koy yóbbaale bu fekkee suñ aada fii mooy ku fi takk soxna da ko koy wutum lal nga takk soxna wutal ko lal boo ko wàccee day yóbbu lal yooyu kenn du layee ne lal bi ci néeg la nekk kon doo ko yóbbal waaye li nga xam ne ci aada dañ ko baaxoo may jigéen nga takk ko soxna may kooku moo ko moom buy dem da ko yóbbal kon xëccoo yooyu lislaam dog na ko jërul sori bokk na ci li topp ci passé idda jigéen ju tàggoo ci ab sëy rek moo xam war naa iddawu mooy am diir bu muy toog boo xam ne deesu ko may keneen deesu ko ngoro du tukki saa bu tàggoo amee rek moo xam ci fase la moo xam faatu daa am borom kër ndax loolu it dana dana teg ab sëy saa bu ab sëy dañee rek idda day am idda nag dañ koy def ngir setal xool xool ngir bañ ay askan bi jaxasoo bokk na ci tax ñu yoonal bu idda amutoon nit ki mën naa tas tey tey ci kër suba mu sëyi feneen ñu toog ñaari weer ñett ab ëmb feeñ ci moom ëmb bi ci kum bàyyi koo ndax borom kër bi ko ci la wala ci ku mu ci takk loolu du leer lislaam yu mel noonu moo tax mu santaane idda ba nga xam ne lu fi feeñ ci diggante bi ñu xam ne ci borom kër bi la bu jeexee nag ñu xam ne buñ fi jógee ëmbut kon bu amaatee borom kër bu ëmbee ñu xam ne kooka ko ëmbal waaye su ëmbutoon doom dana sosu te duñ xam koy bàyyi dis na ko daf ngirit may pase ñaari way dencante nit dana tàggu borom këram fekk fekkaayu dox seen diggante waaye bu ñu toogee tuuti rek ku ne xalaataat duñ waxtaanee jubóo te bu ëdd amutoon ku tas rek mu jeex bu ëllëgee ñu may ko keneen nit ki mën naa rëcc te du mën a dabaat waaye li tax fay la mën a amee idda moo tax ndax diir bi muy toog di iddawu bu fay la jotee ci la jotee su amutoon nag mën naa nekk bi ci def it sàmm kóllëre nit ku faatu masalal faatu tey rek ñu xëy suba ni soxna may nañ ko keneen mu daal dem loolu du wóllëre waaye toog biir boo xam ne day sàmm kóllëre borom këram boobee door a dem fenn muy dem bu ëllëgee loolu it sàmm kóllëre boobu tax nañu yoonal idda bu ko defee idda nag noonu lay demee ab biiram nag dañuy xool jigéen ji koy def dana nekk ñetti laab ku fase soxna fasem sunna mooy cig laab la ko fase te jotewut ak moom jigéen jën laab googu lay tàmbule wañ ba geneen ba ba ba sobe jaar fa mu laabaat muy ñaar sobe jaaraat fa mu laabaat muy ñett ñetteelu laab googu bu jeexee ba mu gisaat deret rek iddaam jeex na manis na ko may terewuñ maye ci biir it ci biir ñàkk laab waaye fasa ci la ñu kon jigéen ji bu tàbbee ci mbërëg mujj ma rek day jàpp ne laab iddaam jeex na kooku mooy ki gis baax waaye bu dee jigéen joo xam ne gisatul baax walla day gone kooku ñetti weer lay toog saa buñ ko fasee ñett weer lay toog jigéen ju tollu diggante suñ ko fasee saa yu amee doom iddaam jeexal saa yu amee doom iddaam jeexal waaye foofu nag danañ leeral su amee doom te doom ja ñu di ko yéegal ci baay bi waaye ku amoon borom kër borom kër ba tukki mu ginnaawu ko mu def safaan ba ëmb topp ko ca boroom këram yëg ko wàcc ko kooku du am doom ci la iddaam bi jeex jigéen jooju day am doom ba noppi door ay daw day dem ba am doom jooju nga xam ne juddu ci yoon doora nag iddawu ñetti laam yoo xam ni mbërëg meret mi mu nekk ci la koy boole meret bi da koy jàppe genn benn mbërëg waaye ki nga xam ne nag ëmb la waaye ëmb bi góor géey bàyyam weddiwu ko yàlla na dogal rek ñu tàggoo ci ëmb kooku saa bu amee doom ci dam jeex donte dañ koo fase ci suba ci ngoon gi mu mucc bu muccee rek ci dam jeex waaye idda dana nekk atit ci jigéen joo xam ne daa wóoluwut boppam ndax ëmb na wala ëmbul fii ak mi ngi nattable ëmb na wala ëmbul rek day toog ba sikk sàkk ñu jeex day toog day xaar juróom-ñeenti weer bu gisul deret mu iddawu ñetti weer xëy na léegi sax am na ci yoo xam mën naa leer ndax docteur yi xam-xam àgg na ci mën nañoo xam ba xam amul wala amul waaye loolu la boroom xam di wax bu ko defee li am solo foofu ñu xam ko it mooy kuy iddaw du fanaan fudul këram jigéen ju iddawu du tukki du fanaan àll bëccëg nag sañ naa génn doxi soxla bu dem liggéeykat sañ naa dem xëy liggéey waaye du fanaan fudul këram jigéen ju iddawu bu fekkee iddawu ci fase la duñ ko tere mu takk ay takkaay am na ci aaday nit ñi fii kuñ fase dañ ko naan bu takkati jaar déedéet safaan bi sax lañuy wax jigéen bi iddawu ci fase dañoo bëgg muy taaru ndax boroom këram xemme mat ko jëlaat bokkut nag ku tëñ boroom këram faat waaye kuy iddawu ngir fase moom dañoo bëgg muy defar boroom këram di ko gis xëy na xelam dellusi mu man ko fayle bu fekkee fasem fayle la waaye duñ wax ne bu mu takk jaaro wala bu mu takk lam yii tax fase am nag yii tax idda am fase la ak sëy bu ñu firi day lay yoon firi ab sëy idda dana am wala nit faatu ay soxnaam dañuy iddawu wala nit tukki ba mu yàgg kenn xamatul ci moom dara ay xabaaram dog kooku soxnaam bu demee ci yoon am na buñ koy xaarloo bu jotee day dem iddawu kon yooyu ay sabab la yu tax iddawu bu ko defee nag jigéen ji iddawu yi kër gi mu doon dëkk bi ñuy sëy bis buñ ko fasee wala borom këram faatu fa la war a toog ba iddaam jeex waru ko génn jëm feneen waru ko génn jëm feneen saa yoo xamee ne fase nañ ko néegu sëy bi nekkoon waru ko génn moo xam fasem payle la moo xam fasem bàyyil la moo xam bakk la ma sew ma fase yépp ci yam dëkk ci kër gi moom ak jigéen jee ba keroog iddaam bi loolu nag am na njumte ci am ñaari nit ñi fii li ñu xam ne diw fase nañ ko sax léegi mooy génnal sama kër wala jigéen ji mer jëli bagaasam dem fekk borom bi noonu na laa tuxrijoohunna min buyuutihinna loolu góor ñee ko moom kenn sëñ te fase soxnaam di ko génn këram te indam matu waaye wala yaxruj na jigéen ñi it sëñu ñoo mer ba jëli kon saabu fase amee rek jigéen ñi ci biir néegam la war a def bu dee fasem tay la moom góor gee koy dundal bu woppee moo koy faj bu fi soxla yére moo koy jox ba bay dang nag lu dul bànneexu ci moom ak dugg ci ne ba wéeteek moom loolu rek lañ ko tere waaye leneen lu loolu ba tey da ko war fasem tay bu amee fii idda ji jeexut soxna si soxna la ñoom ñaar ku ci faatu woon ci diggante bi sama morom dalay doon bu nit fase woon soxnaam fasem payle laata idda ji jeex borom kër ba faatu soxna su day teñ day jóge ci idda ji tuxu ci teñ ji te day doon bu fekkoon soxna si faatu it noonu borom kër da koy doon fasem tayle mooy moom nga ku ku yor jigéen fase ko fasem tayle fii ak iddam jeexut mënoo takk mbokkam ku yor lim bu mat fase ci kenn fasem tayle jeexut mënoo fasaat kenn jigéen moom bu dee fa seen pay la dañu wax ne soxna la ci lu dul bànneexu ci moom la ci des lépp yaa ko amee bu dee passé mu dog na moom du soxna bu faat kenn faatu woon ci yéen ñaar du ngeen donnante waaye nag ci kër gi lay dëkk moom néegam du ko génn fii ak idam jeexu mooy dundal boppam nag wala ay way jërëm dundal waaye ci néeg bi la war a dëkk ba idam bi loolu it lu ma tax xam la wootu dem fenn len rek lañ may xana ko xam da ko fekk mu tukki fase ma dab ko ci tukki mom day gaaw del ba ci sax bu doon aji fi wala mu armal suñ ko fasé da wara ñibbi ñibbisi ngir idaw sidna omar daf daan depp jigen ñi ci miqaat yi kuñ ni sa borom kër tass na mu dem mu la yow aji i idaw kon kenn wërta iddawu ba noppi di ne ci idda ba noppi di tukki doonte aj màkk la daganu loolu lu ma tax xam la ndax dana di am ñu koy def jàpp na lu baax la waaye daganu lii xew it am na luy xew léeg-léeg bu nit faatoo wax naa idda ji ñu wax moo xam faatu la moo xam fase la ci biir kër gi doon dund fi la war a nekk léeg-léeg nit faatu fenn am soxna su newoon feneen ñu ne nañ ko jële mu ñëw ba dëj ji jàll jigéen ji fa mu nekkoon keroog bu borom këram faatoo keroog la la iddaam tàmbali waratuta génn di faram feneen fekk dëj yëxul kon bi muy dem feneen fuñ naan fa la daray xewe buy noppee muy dellusiwaat lislaam diglewu ko noonu kon day mel ne li santaane mooy kenn ku ne fa nga newoon ba faatu ga ak foofu nga war a toog tàmbali sa indi bis bi mu faatoo it nag lay tàmbali wala bis bi ñu ko fase am na ñuy wax ne ñu dem ba bis sàngam ñu solal leen xaw ma luñ jublu ci solal bi bu fekkee tàmbali iddawu la déedéet bu fekkee leneen la nag xëy na lool waaye idda daal wala fase fa mi ngi tàmbali bi sëy bi tase mooy wax bi borom këram faatoo wala ñu fase bis yi buy wàññi fajar gi mu njëkk a fekk ci àdduna ci lay tàmbalee wàññi ñu fase woon waxtu wi tey di talaata dañuy jàpp ne alraba mooy bis bu njëkk ci iddaam ci lay wàññee bu matal lim bi ñu wax bu dee kuy iddawu ci ay bis du mel ne ku borom këram faatu loolu it lu mat a xam la ndax danañ ci di juum léeg-léeg kon ku fase soxnaam bu dee faseem payle moo ko war a dundal ba idda jay mat bu ëmbee mu fase ko moo ko war a dundal ba ba muy am doom waaye ku fase soxna te ëmbul nekkul pasem fayle dundal soxna sa warul waaye nag dëkk ci kër ga moom war sañoo ko génn kër moom it sëñ ta mer ba génn bokk na ci li fase li li li fase bi jur li ñuy wax teeñ bi idda wax naa ko léegi mooy saabu sëy pase idda dana am mooy toog gi jigéen gi toog ab diir dee su ko maye dee su ko ngoro du tukki di fanaan àll teñ ji nag mooy ñaawlu bàyyi taaru du takkati ay takkaay du xeeñoo xet bu neex du sol yëre yu rafet loolu moom ci faatu rek lay am kuy idda ngir borom këram daa faatu day boole ca idda ja li ñuy wax teñ ñeenti weer lay toog ak fukki fan yoo xam ne diir boobu mooy idda ji waaye ci biir diir boobu da koy war a boole teñ mooy du takk ay takkaay du jaaro du lam du lenn lu ñuy takk di ko rafetaayoo du sol yére yoo xam ne dañ koy waaje du xeeñoo gët buy sangu it du sangoo saabu bu am xet bu neex sañ naa sangoo saabu ordinaire sañ naa diwoo diw yi nga xam ne nag amut xet bu neex sañ sol yére sañ naa xëy di doxi ci ay itéemi bu amee liggéey mën na ca xëy waaye nag du fanaan àll du fanaan fu dul këram du tukki loolu mooy li digal kuy tëñ li ci des lépp li ñu di ko def nag bopp waaye daal mooy du du toilette du fanaan àll te loolu ci idda jala képp ko iddawu loolu lañu ñu moom dañ caa yokk ñàkk a taaru jooju bokk na ci li topp ci fase li ñuy wax yóbbal bokk na ci liy topp ci fase ab yóbbal sëriñ Mbàkke lan moo di ab yóbbal buy dem war nga koo joxub yóbbal bu dee fase mu dog la foo ko fasee rek yóbbu jox ko mu dem jox ko jox ko mu toog teñ e iddawu bu dee fasem payle négal ba idda ja jeex bu fekkee ne faylu woo ko nga door koo jox waaye yóbbal daal ci mazhabu Maalik lu ñu sopp la sopp nañ ku fasi soxnaam ab diggante bu ñu ànd ba mu yàgg ñu tàggoo naqar woowu soxna si di am ñu jangee ko dara nga jël alal wala nga jël lu am njëriñ daal jox loolu lu sopp la bu dee ci yeneen mazahib sax dañuy wax ne farata la walil mutallaqaati mataan bil maarufi xaqan ala al muttaqin mataan bil maarufi xaqan ala al muttaqin ñoom dañuy wax ne tënk bi ñu ko tënk ci ñu ragal yàlla bu doon farata ci ñëpp duñ ko tënk foofu kon ku fase soxnaam na ko joxaale dara buy def dara jooju nag amul fu mu toll alal muusi qadru wa alal muqtiri qadru ki woomal ak ki ñàkk kenn ku nekk man na ngay joxe ku mën a joxe ay millions yu bari ndax woomal na su ko defee def na lu baax ku mënut lu bari lam mën a ko su néew mu joxe ko def na lu baax waaye daal kenn du fase soxna ba ko mu dem noonu te joxu ko dara loolu dana wuuteeg ñi nga xam ne kon day fase ba noppi buy jëli bagage nga ne ko bagage du dem dañ laa sant rafetal fa imsaakum bi maarufin aw tasrixun bi ixsaan loolu la alquran wax téye ku téye bu rafet mbaa nga bàyyi bàyyi bu rafet bàyyi bu rafet nag bokku ca di nanguy bagaatam waaye safaan bi jox ko lim li moom lépp boo nappee wutal dara tegal ko ci mu xam ne diggante bay jeex yàllaa ko dogal moom mi ko fasoon moo dogal mu fecc ko waaye du leneen waaye nag li gën a bari li ñuy gis mooy fase moom bu amee ñaare yeneen ay xew waaye duñ xalaat sax wut yóbbal te loolu nag lu ñu santaane loo xam ne war nañ ko bàyyi xel baax a nañ ko bàyyi xel baax a baax ñi ko soxla wut benn benn lañ am na ñoo xam ne kenn du leen jox yóbbal bokk na ca kuñ fase njëkk weet kuñ may soxna gisewuñ te mu waxoon ne dana ko jox nangam mu fase ko te gisewuñ xam nga jigéen buñ ko fasee dañ ko bu fekkee njëkk wéet la dañ koy jox genn wàllu cenam xanaa ku ne woon soxna si danaa ko cenal ñaar fukki junni ñu may ko ko ci loolu mu fase ko te gisewuñ ameel na ko fukki junni kooku fukki junni yooyu mooy taxaw taxawaayu yóbbal kon du jar nga di ko joxaat beneen yóbbal ak jigéen joo xam ne moo fay alal ngir borom kër wàcc ko parce que mu ñu wax parce que kon dana ci am maanaam li ñu waxoon ci ginnaaw ne góor moo sañ a fase jigéen nit sañ naa ñaan fase bu dee loru ci sëy bi wala sax mu dem bu yàgg daal sëy bi neexatu ko sëy bi neexatu ko donte loru wu ci waaye neexatu ko sañ naa ñaan wax ak borom këram fay ko alal mu yewee ko mu dem su boobaa nag dañuy waxtaan ba juboo ci alal bi niñ koy fay mën naa tolloog la góor gi joxe woon mën na ko ëpp mën na ko yëg waaye boroom xam-xam dañuy wax ne du du muru ak nag ngay laaj sa soxna lu ëpp li nga ko joxoon boo koy fay alal it na fekk dafa nga laaj ko lu yées wala lu tolloog li nga ko joxoon li cosaan it mooy jigéen a koy laaj waaye jigéen ji koy laaj it mooy koo xam ne sëy bi amul ci jafe-jafe waaye daal de moom yàgg daal neexutu am na soxna soo xam ne dafa ñëw ci Yonent salaam ne ko daal sama borom kër de sikkuma ko sikkuma ko ci diine sikkuma ko ci jikko waaye daal mënatuma koo dégg yonent bi alayhi salaam ne ko ndax man nga koo delloo toolam bi mu la joxoon mu ne ko waaw yonent bi ne kon jigéen bi nga xam ne daal damu yàgg mu gis ne daal sëy bi daal jàpp na ne bu ci wéyee aw naqar lay wéy ndax bànnee fa taxoon mu dugg ci te gisatu ko ci waaye nag amut aw sel wala lor bi ñu koy def waaye koo xam ne nag dañ koy lor moom sañ naa tas ci lu dul fay alal suñ koo géttanee ba fay loo ko alal su demee ci yoon ba saxal ne dañ ko dañ ko doon lor yoon day woo waaja nanguwaat alal ji delloo ko soxnaam kon suñu koon ki nga xam ne nag moo bëggal demal boppam bëgg a tasal boppam ba joxe alal kooku moom kenn du ko jox yóbbal ndax day mel ne tas gi ni naqari ak sëy buñ firi bépp sëy boo xam ne yoona ko firi kooku yóbbal amut ndax góor gi defu ko ak li ñuy wax rëbbonte buñ waatoo ku tuumaal soxnaam dafa ko safaan bañ waatoo bañ tas tàggale leen foofu yóbbul dafa am ak jigéen joo xam ne boroom këram da ko moom loo boppam ne ko seetal bu la neexee tas bu la neexee toog mu tànn tas kooku it mu bëgg a dem ñooñu kenn du leen jox yóbbal waaye ñu dul ñooñu nag buñ leen wàccee war na leen a jox yóbbal su ko defee it bokk na ci li juddoo ci fase mooy joxe kenn jigéen saa buñ ne fasal nañ la ko rek genn wàllu cen gi moom na ko ci sàkk képp ku wax ne di ngoro ba ñu war laa may nga ne cen gi nàngam la fukki la nga ne waaw ñu daal lay fasal ne la may nañ la ko nga ne nangu naa waaw daal ne waaye fase naa ko da ko jox juróom mooy ku fase soxna njëkk ngay gisee moom ameel nga ko genn wàllu cen ameel nga ko genn wàllu cen su ngeen gisee nag seen gu ma sëkk nga ko fekkee joxoon nga ku baax na bu fekkee joxe ko baax waaye kuñ joxoon seen gu mat ba mu téye borom këram wàcc ko te wéetul war naa delloo genn walla loolu bokk na ci liy toftaloo ci ak fase bokk na ci liy toftaloo ci fase sàmm kóllëre xam nañu ne fase dagan na waaye ab sëy koy jiitu te sëy boobu koy jiitu day jur ak mbokk xam ngeen li ñuy wax le ci lislaam day sos ak mbokk boo xam ne day am worom nit ki suñ la ne may nañ la diw nga ne nangu naa ca saasa rek yaayam sa borom aram na la ba faw sañutoo ko jot sañutoo ko tax kon ab sëy daan na jur ak mbokk naka nonu sa buñ la maye soxna ba nga joxe ak mom ay domam yeb ak ci sëtam aram nañ soxna fi yeb naka nonu ci say dom ak say am say njaboot yi kon fasu sëy day jul ak bok bok gogu nak bu sëy bi dañay du dañ ndax limu wax sank buñ la mayon soxna don ci musoko bi nga fase ko yaayam sa goro buñ la lon tay may la ko nga ne nonguna waye waaye fase naa ko yaayam sañutoo ko takk da wax ne la man sa yaay soxna la suñu sa yaay la mënutoo ma tey doom ji it saa boo xasee xam yaayam doom aram na la ba faw kon mbokk googu doon si sëy bi tas na dafi def moo taxoon borom bi di wax naa wala tansawul fadla baynakum bu tàggoo amee it ngeneel ak mbaax ak li dox seen diggante ay relation bu leen ko fàtte kon li mu bëgg mooy tàggoo ci sëy bu mu wërta tàgg wërta ju ak tàggoo ba ñooñoo noonoon ci kenn dootu wax ci sa morom lu baax wala wala ak safaan rek la ñuy wax ci moom dundal mbokk boobu day nekk lu war day nekk lu war ñu war koo sàmm buñ ko sàmmut dañuy am bakkaar ndax ak yi ñu war a tegu ñu war a dégg ci biir li ñu wax yi ne kon ndekete tàggoo ak fase ci sëy ni ko yombale fi mu ne yombewul noonu ni ñu jàppee ne rek mer rek war nga ko mën a def yombewul noonu teengal ci la lislaam dafit lool bu ci masla ndax day wax ne jaxasoog jigéen dee su ko mayee ci lu ñu lënt wala ñu ci xel moo tax am na kilifa bu baax ci réew mi fii ci dëkk bi daf daan wax moom ne pasem jaahil batta la ku dégg diine la nee na ab jaahil bu fase pasem batta loolu mooy xikma bi kilifa yu bari fii ci dëkk bi ku fase soxna boo ko beugé takkaat dañu gàtt ñu bari dañ na la ben yon la ko fase kon fase mi warna war ko mëna faylé ñom seen deggin moy fasem jahil bat fasem jahil bat la manam fasem ko xamut fasemu dog la lutax serigne mbacké mbàkke fasem jaahil di batta lutax xam nga li ñu wax ku xam nga soxna fi dama ko bëgg wacc da damay mi ngi ci baax sañu ma ko wala ci laab la nekk waaye jote woon na moom ba noppi kon naa bàyyi ba mu mu jeexal laab gi ba gisaat baax ba laabaat ma door ko fas te su ma koy fase it naa ko fase benn yoon képp fii idda ji jeexut moo ci teg beneen ne na ci biir néeg bi ma di ko dundal yor ko ni ma ko yore woon lu dul wéet ak moom ba tey ma ma ma ma daa war wéy loolu borom xam-xam ko man ñaare ci xamut moom jamono yi muy sosee lépp ci jigéen di doyal la ma waral sax nga gis loo xam ne day lim li ñu bari fase naa ko téeméeri fase ak nangam am na ko waxoon ne fase na soxnaam téeméeri fase ñëw ci kenn ci saa bay mu ne ko ñett yi dog na juróom ñeent fukki ak ñett juróom-ñaar jël ko waaye ñett yi moom ñàkk nga ko ñett fase na kon fasen jaay bakk la bokk moo tax nit ñi war nañoo xam ne ñuy def ñu bari ci nit ñi da leen gis fase seen soxna bu di lay lay wanuñu lay jubluwu ci woon léeg dama doon kafar waxuma ko woon lii soxna si ne moo ko wax muy waxu yu bari yu am ginnaaw noonu la demee nag bu ñu leen amee nañ leen téye lii xew seen digg ñu di ko muñ foofu la nit ñi mënantee nit ñi fiñ mënantee du ci sa kër ne dégg sa kër day yëngu ci biir nga fexe ba yëngu ba kenn déggu waaye kër yépp a yëngu ku baax waxoon na ne ñu ci sama kër ak ñu ne ci kër diw ñoo yem man maa wuuteeg diw kon góor ñu wuute loolu mat naa xam mbokk yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk jullit yi mbokk taalibe yi gannaaw li nu cërale ci waxtu buur na xam naa dinañ yëkkati jataay bi rek di fàttali thème bi nu tànnan neen ko waxe woon ci tàmbali bi. gannaaw makaarimal axlaax lan wax mu di jikko rafet jikko yu rafet nag ci lépp lan ko taamu rawante ne nag ci lu mel nii nga xam ne ni ko sëriñ xaali leeralan ci tàmbali waxtaan wi wax ne ñaare ku koy def amaan na mu bañ ànd ak sagoom wala mu bañ ànd ak xelam dëgg-dëgg ngir mer waaye lu ci mën di xew rek war nay sàmmanteeg tegge ni nga xam ne moom la ci islaam digle war nay sàmmanteeg itam ni ko sunna diglee ngir loolu moo war ab jullit ñu ngi leen di jox dig daje incha allah ëllëg ci waxtu wi ci yeneen waxtaan wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu زاهدين ويلتمي زاهدين نازحين ويلتمي نازحين صادقين ويلتمي صادقين فائزين وامنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين

ñetti xaaj mu yomb lool loolu moo di lan muy njub ku ne xam ne njub safaana muy dëng la ca dolli mooy wii ci ndigal bàyyi tere loolu mooy diine loolu mooy lislaam la ca dolli ko bëgg lu baax bañ lu bon nekk ci lu baax di daw lu bon loolu moo di taalu bi ñett yooyu rek téere yépp ba ci alxuraan lépp loolu rek la mënoo koo gëstu ba fekk ci loolu loolu rek la mu gën a gàttal nag ñu gën koo mën a xam loolu rek la waaw kon nañ góorgóorlu ci gone yi teel leen yoonu yoon woon yoonu jub góorgóorlu eh, eh, yooyu rek la yooyu rek la njub góorgóorlu ci sa lislaam góorgóorlu ci sa taal bi lépp ci biir kon xanaa kay ñuy gën a xam luy jub ñu xën gën a xam mbir lislaam ñu gën a xam lu taal bi rek waaw loolu yi dem dund gi na ci ndax loo gën a xam di gën di di gën di defaru di gën di yokku di gën di jëm kaw loo ko gën a umpale di gën des gannaaw rek di gën di yàq solo kon foofu it foofu lay tëjji nekk dund adduna gi nga xam ne waa adduna moom ci la ñuy daw def ci seen yitte def ci seen lépp lu dara li leen cee jëriñ suñu borom noppi na ci ñoom loolu ganaar yi sax ñu ngi buñ xëy xam nañ nañuy dundee njaayaan yi xam na nu ñuy dundee ndëg ment yi xam nañ nu ñuy dundee dund dund ko loolu moom suñu moom noppi na bind tab yàlla bind la waaw bind la kooku moom ala kulli haal ku ko moom moom du dara du dara yomb na li am solo mooy mooy mooy mooy jéem a xam li xew a xam li xew moo am solo waaw xam yàlla xam alaxira fas yéene eh, nekk ci looy may ngërëmal yàlla nekk ci looy may mucc àllaaxira loolu moo am solo li ci des lépp du dara yomb na waaye kër kër kër yoo xam nga sa lépp def ko ci loo xam ne du la benn njëriñ waxuma la te ñàkk njëriñ la mooy moo mu ñàkk njëriñ nga mooy jàmm ja la ak i mbugal yu dul jeex ba jahannama kooku du dara jël sonn kon nag la nga xam ne mooy tabee nga xam bind la loolu amul solo dund moom yomb dund moom yomb na dund yomb na loolu loolu amul solo jël sa ci benn paar gannaaw ba loolu bee itam yàlla noppi na ci jaam bu ne lay wërsëgam yàlla ku ko yoroon fu mu ko fekk ak moom lay cëram yàlla ku ko yoroon fu mu nekk dina ko fekk ak moom waaw bu fekkoon ne yombalu ko woon ba kenn ku ne mën a mën a mën a gara gara yi ñu dund ñaareel na ñu ngi dund ñi ñi ci àll bi sax ñoo gën a suur yi ñuy tàmm di leen dina xont te loolu lépp suñu borom loolu wowum bu fekkoon te yombal googu képp doyoon na waaye suñu borom ci boppam jàmm bu ne mooy sa cër mooy sa wërsëg jëru sonn dëgg la sabab lu rafet na waaw ndax mu nit mënut a toog nekk ci loxoy neen am am bu gindi ko def def def de jublu yàlla dëddu adduna waaw bu boobaa itam eh, eh, dëddu néew dëddu teewut lekk. teewuta naan teewuta sol mbubb teewuta nite waaye loolu yomb na li am solo mooy jéem a xam yàlla jéem a xam àllaaxira waaw tàmbali ko ci gëm wéral sa gëm wéral sa gëm ba gëm ga wóor wóor te gëm gëm gëm loo gën a gëm loo gën a nekk ci lu baax loo gën a topp yàlla loo gën def ci ndigal gëm gi di yokk waaye loo ko gën a sàggane gëm gi di gën a nii di gën a dellu gannaaw di gën a tuuti di gën a néew ba faf ñàkk sax waaw kon nu góorgóorlu yomb na du da du na waaye nag yomb na jafe na yàlla lépp ndimbal sa la yàlla nu yàlla gindil boppam gindi nu gindi nu ba boppam gindi nu sëriñ Tuubaa waaw eh, bi eh, nun mooy suñ lépp nun mooy waaw ku am sëriñ bi am nga am nga sa borom bi waaw sëriñ bi mooy suñ lépp bañ na ko dëgg wax ne yonent yi di wax a yi sëriñ bi du yonent du malaayika waaye xejju boromam a ba bu mujj ko def ko dëkkandoom xaj boromam bu mujj def ko di ko dëkkandoom kooku noonu lan am mooy suñu kilifa kooku am waaye nag nan ko nan nan nan nan ko nan ko sagal nan ko sagal waaw yàlla rek la bëgg sëñ bi gu dara yàlla rek la bëgg kon nan ko sagal bëggale ko yàlla waaw bi nan ko sëñ bi bëggul dara def lu rek liggéeyal boromam rek waaw jaamu yàlla liggéeyal liggéeyal yonent bi ñu jëwriñam loolu rek soxal soxal sëñ soxla leen kon nañ ko sagal nañ góorgóorlu ci njub gone yu tuuti yi xëy na gone mënut a tëb tëb sax di aw yoonu njub waaye njub bu bu ne bu ne tuuti rek daal di xam kon na xam ne njuba gën ci moom waaw lu mu tuuti tuuti booy mu teel a xam ne njuba gën ci moom waaw gannaaw njub diine waaw nañ góorgóorlu ci njub fas yéene ko liggéeyal sëriñ Tuubaa mel jéem mel na ni ni ni ni ni borom bëgg waaw sagale ko ko. waaw buubul suñ diine suñ lislaam suñ kem kàttan waaw sàggale ko ko waaw waaw waaw buubul ci taalu bi waaw bëgg lu baax bañ lu bon di def lu baax daw lu bon waaw suñ kem kàttan teel la tax ñu tund loolu loolu loolu lépp sëñ bi la moom loolu am waaw loolu lépp sëñ bi lañ koy liggéeyal nan ko nan nan góorgóorlu loolu rek la li téere yi bari bari bari bari bari téere yu njëkk yi ba ci alxuraan loolu rek loolu rek leen loolu rek ko tax a yoon di li ñuy bari bari bari bari li ñuy baax loolu rek leen tax a bi loolu rek ko fi li fi indi yonent bi rek mooy yéen yonent moo ko fi kon nañu góor moom lu yomb la waaye nag yomb na jafe na ndéem li ma yàlla rek la ak taw feexam yàlla nu yàlla dimbalil ba bundil ci boppam gindaluñ sëriñ Tuubaa boole nu dimbal nag ban mën a sax ci jaamu yàlla liggéey sëriñ Tuubaa waaw loolu rek la loolu rek la ngeen jëf jërë ngeen jëf bu baax waaw sëriñ Isaaxa mi yaakaar naa ne loolu li ma wax eh, mooy sunu rak dafa teeloon am jom lool am yitte ne day jàngi xam-xam boobu xam-xam rek la xam-xam xam-xam waaye teeloon naa bàyyi xel sëriñ bi ndax sëriñ bi la jox jibalu boppam ba mu daan dem mu dese itam tëletul loolee loolee ko am na am na lu ko gën a ñor fi ne muy lii wax rek <laughs> waaw kon nag loolu rek ci am solo. loolu nag nan ci nan nan ko xam nan ko xam rek nan ci yeewu te góorgóorlu ci du ñu yàqal li ñu li ñuy wut suñu àdduna ci ñuy kër-këree du dara du dara njaay yaa ngi dund ganaar yaa ngi dund njëlk yaa ngi dund <coughs> te lu am solo loolu du dund lu ñu dund dundee rek ñii nu lii lii ñuy kër-këree di wuti bu bëgg di wuti di di di loolu yomb na du dara loolu moom moom dañuy dem rek mu topp ci noonu waaw waaw te la ci ayut la ci ayut mën nañ ko jëfandikoo duñu yàqal dara waaye nag buñ tal dara nan tal yàlla nan tal suñu borom nan tal alaxira na buñ tal dara nan tal alaxira nan tal suñu borom tal alaxira ah te sant yàlla sant yàlla sant suñu borom sëriñ am nan am nan lu doy sëkk tey ëllëg waaw sëriñ bi sëkk tey ëllëg waaw bi doy na sëkk tey kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéeyal waaw na nga ko fas yéene bu ñu ko liggéeyee rek am ngërëm ah, ah, ah, bu ñu amee ngërëmam rek am na ngërëmal yonent bi am na ngërëmal suñu borom waaw nan góorgóorlu bu baax a baax dëddu adduna dëddu adduna buñ ko day wax noonu ni ma ko waxee woon rek doo doo doo teewut lekk teewut naan teewut nit waaye nag nga xam nga àtte ci sa xel ne adduna kat amul lu njëriñ sa musiba rek la nga àtte ci sa la amal njëriñ mooy mooy mooy yàlla yàlla rek la amal njëriñ alaxira rek la njëriñ la nekk waaw nga nga àtte gëm gëm loolu àtte waaw xam ne loolu loolu moo nekk waaw loolu mooy tëddu mooy tëddu waaw sa xel doo ci gis dara doo ci gis loolu lenn lu am jëriñ lu yàlla waaw waaw doo moom mucc kaay doo gis benn mu kaay adduna kër kër ji ci gis benn mucc baay mucc kaay bu ñu mucc àllakal rek waaw waaw loolu rek la waaw li ñu yàlla rek moom moo fi moom mooy moo yor njëriñ jàmm waaw mucc yi àllakal rek rek te itam ala kulli xaal lii bu jubloo yàlla boo góorlu suñu kem kàttan fas yéene sax ci jaamu yàlla liggéeyal ko Sëriñ Tuubaa fas yéene sax ci liggéey Sëriñ Tuubaa jaamoo ko yàlla buñ ko defee texe gi fii la ñu du du ni nga ëllëg du ni nga ëllëg dañuy texe fii di wéy ba ba ba ba ba àjjana waaw ña nga xam ne borom yitte yu rëy la ñoom ñoom te amuñ soxla ci àjjana ngërëmal yàlla lañ soo waaye nan góorgóorlu إني أحمد مربي الوكيل مسليا على إمامي القبيل إني أحمد مربي الوكيل مسليا على إمامي القبيل إني أحمد مربي الوكيل مسليا على إمامي الكفين نبينا رسولنا الحبيب سفينا خائدنا المجيب نجي المائل الفرا محمد رجائنا ماننا مثل قديم والي وسابي وتابين وبعد فالمطلوب وأنت يا معين ان وقل لوالدي وللجميع ولنقبل ثويا يسر لنا جميع ما ينفعنا وكفنا جميع ما يدرنا